aousubillahi min seytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin wasalaatu wasalaamun ala asrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin nabii lu min wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi wa sallim tasliman barke xaadim rasul bokki jile di ñuy déglu ak bokki taalibe yi nga xam ne ñu ngi seetaan noo ngi fii ci kër njabootu sëñ Aliou Touré ci bis bi nga xam ne moom la ñuy waajal E, muy bis bi nga xam ne alxaaji sëriñ Gana Mesere Maxtaar daf koy sant sëriñ tubaa di ko ci delluwaat njukkal xam ngeen ne rek ren mu tudde ko njabootu sëñ Aliou Touré tudde ko barikalla jataay bi ngeen seen ak njabootam ñoo fi toog ngir waajal li nga xamante ne bi moom la bëgg a waxtaane muy sëriñ Aliou ture delloo siwaat ak dundam waxtaane waat taxawaayam dégg ma sëriñ tubaa ngir ndaw ñi man cee jànge mag ñi man cee fàttali ko noo ngi nag ci jataay bi ak sëriñ Cheikh Touré xalifab sëriñ Mbacke Touré noo ngi ci jataay bi ak sëriñ Alxaaji sëriñ Nis Touré xalifab sëriñ Sohaybu Touré ñoo ngi ci jataay bi ak sëriñ Mamor Touré borom Touba jërëjëf ñoo ngi ci jataay bi ak sëriñ Abdou Samad Touré borom baax ñoo ngi ci jataay bi ak sëriñ Basiru Touré moom sëriñ Ñomre Touré ñoo ngi ci jataay bi ak sëriñ Basiru Touré borom Barikalla ñoo ngi ci jataay bi ak sëriñ Ale ñaŋ ak sëriñ Saalihu Sambu Eh, ak sëriñ Cheikh eh, seen ak sëriñ Bassirou Ndaw bàyyikoo ci kuréelu soppay sëriñ Gana Messere Maxtaar bi nekk ndaamaatu muy ku dajul Bàmba dajoo nu it ñu teew fi teewal fi alxaaji sëriñ Gana Messere Maxtaar yar eh, ñu dénk lu jëm ci wàllu communication bis bi ñu ànd fi ak bokk yi nga xam ne ñooy sëñ Bassirou Ndaw même wax léegi ak sëriñ Cheikh Sène ngir ànd ak yéen jataay bi nga xam ne at mu jot sëriñ Gana ku mu ko tuddee day dem ca njaboot ga ñu waxtaane kooku ak dundam waxtaane nañ ko léegi ci rajo Lam Fall am na yeneen émission yi am ci rajo yoo xam ne kenn dana bàyyi ci njaboot gi ci kër gi dem ca rajo booba delloo si waat dund mag moomu loolu lépp it li tax sëriñ Gana di ko def rek mooy bëgg ndaw ñi mën a jàng ci dundu mag ñi bu ko defee mag ñi it mën a fàttali ko dundu mag ñi loolu rek la ci alxaaji sëñ Gana Messere jublu moo waral bi ñu jàppee màggal geeg léegi ngeen dégg woote bi ci béréb yi nga xam ne yàlla dogal na ci lay taskatu xibaar yi nekk fenn fu nekk yóbbu dañ fa yëgle bi ak ngir bëgg lislaam bi yëpp jot ci ngir ñu xam jëmm ji nga xam ne ñu fàttalikuwaat ab dundam ngir ndaw ñi mën cee jànge waaye ñu tudde ko it sëriñ Mabeye Guèye eh, dara jaale ko it sëriñ maam seex fay sëriñ maam Cheikh Faye di kenn ci yoon wi eh, di bokk ci ñi nga xam ne taxawaay bu am solo la ñuy taxawee ci yoon wi yaakaar naa ku miin alxaaji sëriñ Gana miin sëriñ xaadim miin jànkat yi miin nga ko mu bokk ci yoon wi di borom taxawaay bu am solo yàlla dogal eh, bis bi nga xamante ni bii sëriñ Gana bi mu ko tuddee sëriñ Aliou Touré barikala tuddee ko sëriñ Mabey Guèye daf ko dara jaaree sëriñ maam Cheikh fay sëriñ maam Cheikh Faye moomu it moom it xam ngeen ni tey rek jataay bi ñu doon def yabaloon ndaw mu ñëw teewe ko moo waral nag nii nag ci jataay bi eh, ñu fas yéenee ànd ak yéen. ci ci dund ak liggéeyu jàmbaar ju tedd jooju muy sëriñ Aliou Touré barikala xam naa incha allah rabbul alamin kàddu gi nga xam ne mooy jóge ci kàddu xalifa bi incha allah bu ñu demee ba ci kanam nga xam ne ci jeexantal waxtaan wi mooy kàddu gi nga xaaye moo war a tëj danañ ko indi incha allah waa euh, kuréelu soppee sëriñ Gana Messere Maxtaar bi nekk ndaamaatu ci njiital sëriñ Basiru Ndaw ak sëriñ Cheikh Sène mi nga xam ne tey moom moom ñoo ànd moom muy borom taxawaay bu am solo di yëngu ci sëriñ bi di def ay waxtaan moom Eh, nekk ci kuréel ba it ànd kook ñoom ci liggéeyu sëriñ bi dana fi jël kaddu waaye ngir njëkkante waxtu wi rek kon dañuy bàyyee kàddu gi sëñ borom baax bu ko defee mu nuyoo bu nuyoo nuyoo bi rek mën na ko boole ak laaj bi ñëwal nañu ci jëmm ju tedd ji nga xam ne tey moom la alxaaji sëriñ Gana Messere tudde bis bi moo mook sëriñ Mabey Guèye ak sëriñ Maam Cheikh Faye mu dellu si ñu nag ci sëriñ Aliou Touré barikalla mi ci feeñ jamonoom am njàngam ak leneen ci kàllalaam ak leneen ci ay jaar-jaaram bu ko defee ñu doog ñëwaat ci leen tomb yi kon sëñ borom baax ñu bàyyi la kàddu gi. ñi jaar ñëpp di wax ci kàddu sëriñ Mouhamed mi nga xam ne moo yor kàddu kër Cheikh Aliou Touré barikàlla nga xam ne jotaay bii moom lañ fi teewal kàddu gi kàddoom la mu mel ni it ñoo ngi nuyu bu baax sëriñ Gana Messere Mokhtar mi nga xam ne moo sabab jotaay bu am solo bii. nga xam ne dara warulu ko lu dul sant ak delloo njukkal sëriñ Touba Xadim Rasul waaye fàttaliku mag ñi waaye dundalaat leen te mu mel ni Serigne Gana Messere Maxtaar moom day ni ma ko waxee woon ci rajo bi rek moom day dafa mel ni jugut ba tàmbali liggéeyal Serigne tubaa ba Serigne bi gàttandu ko muy sant Serigne bi waaye dafa mel ni moom ba mu jógee rek tegu ci yoon wi fas yéene jaayante ak dundam ngir liggéeyal Serigne Touba Xadim Rasul ci la jaayante woon tàmbali sant sëñ bi dàmbali ko delloo ak njukkal ànd ak moom ba mbir mi egsi fi tey. kon Serigne Nganda Mesere Maxtaar ñoo ngi koy nuyu te di ko siyaara te di ko sant bu baax di rafetlu bu baax taxawaay bii mu am ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa Xadim Rasul bi waaye bés bu màgg bu tedd bii waaye rawatina nii mu ko defee muy fas yéene ko dundale ak mag ñi nga xam ne ñoo àndoon ak Serigne Touba Khadim Rasoul ren yàlla dogal mu tuddee ko Cheikh ture Touré Barikalla ak mbokkam ma maa Mabey Guèye mu mel ni tey nag euh, sëñ Modou Mokhtar nga laaj ñu ngir ñu ubbee waxtaan wi ci càllal Cheikh Aliou Touré Barikalla ak gane jamonoom waaye mu mel ni Cheikh Aliou Touré Barikalla jëmm la joo xam ne ju naqaree waxtaane la waaye jëmm la joo xam ne ju neex waxtaane la ndax li tax ñu wax ko mooy mbir mu mën a doon ci àddina day am saayiran am baatinan day am lu feeñ am lu nëbbu waaye dañu jàpp rek ci li nga xam ne mooy li feeñ nga xam ne dinañ ko mën a waxtaane ngir mu doon njëriñul mbindeef ñëpp àddina ak alaaxira Cheikh Aliou Touré Barikalla nag mu ngi cosaanoo Kajoor ci dëkk bu ñuy wax Touré ngan waaye juróom bu góor di sëriñ Masamba Warxa Binta waaye juróom bu jigéen di soxna Latti Gay Cheikh Aliou Touré waaye juróom yooyu sunu boroom dogal na ay xaadir la woon doonoo nit ay nit ñoo xam ne mosuñoo tuub di dugg ci lislaam ay nit lañ ñoo xam ne naka jekk ci lislaam ci lañ gën àddina ci lañ jeexal takk seenug dund yàlla dogal sëriñ Masamba Warxa Binta moom day dafa yoroon daara ju mag ca Kajoor daan jàngale alxuraan ak xam-xam mboolem fànni xam-xam yëpp Cheikh Aliou Touré mii bi mu demee ba mata dal alxuraan way juróom bu góor sëriñ ma Masamba Warxa moo ko jàngal alxuraan ci diir bu gàtt mu mokkal alxuraan def ci li ci doomi soxna war a def lépp mu jàngal ko mboolem fànni xam-xam yëpp bam peeg yëpp waaye it mu yar ko yee ko ba mën a jaxasoo ak doomi soxna yëpp ba mën a jaxasoo ak nit ñu baax ñëpp waaye yàlla dogal. suñ boroom it defal ko taw feexi mu doon ko teel am barke nga xam ne jur gu baree bare bari la yoroon daan ko yar ca jamono booba mujj mu doon donn baayam ci daara ji waaye lu njëkk loolu moom li ko boole ak Serigne Touba Xadim Rasul mi nga xam ne moo tax tey jii ñu di ko tudd di ko waxtaane kenn ku ne xam na ne mag ñooña nga xam ne dañoo toppoon Serigne Touba Xadim Rasul ba topp Serigne Touba di jafe waaye ñu xamoon sëriñ Touba ba xam sëriñ Touba di jafe. nga xam ne boo ko doon misaal da nga naan Sëriñ Tuubaa jant la woon jamono booba boo xam ne dafa nëbbu ku ko yàlla wonut mënoo koo xam bukkut ak bi mu nee ab jant bi mu doonee jant boo xam dana ne fang fu waay xool di ko gis Cheikh Aliou Touré barikàlla mii li ko wanaleeg Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul mooy ak ilham ndax dafa am aw niir moo ko daa tiim naan ko Ahmadou Bamba moolo moom Ahmadou Bamba moo la moom Ahmadou Bamba moo la moom dëkkee koog moom nga xam ne ay jamono sax way juróom bu ko masaan nettali ba mu dikk ko da koy woolu ne ko loolu bu ko faral di nettaleti waaye bi mu demee nag ba war a dem ci siñ tubaa xaadim rasul ngir yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dafa fekk sëñ tubaa fii ci mbàkke kajoor xamal ko ne ko sama borom kat lem ma joxoon bis tey ci sa loxo la ko teg yow yaay ki war a xettali mbindee fi addina ak àllaaxira kon ña sunu borom booleeloon ca bu yàgg ñooñu ñooy ñi nga war a xam ne ñi ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom mission bi nga xam ne moom la suñu borom teg ci loxoom muy moo war a xettali mbindee fi àddina ak te yàlla képp ku mu yónni rek boole na la ak ñoo xam ne danañ la jàppale ci lam la yónni yàlla dogal Cheikh Aliou Touré barikalla mii ci la bokk moo tax keroog bi mu tàggoo waajuram ngir fekk Sëñ fii ci Mbàkke Kajoor waajuram da koo rafetlu ànd ceeg moom ngir la nga xam ne daana ko dikkal te daana ci waxtaan ak moom bu yàgg yàgg yàgg moo xam ne moom day ci ñi sunu borom boole ak Serigne tubaa ngir mu war a xettali ji mbindee fi addina ak alaxira moom ci la bokk waaye Cheikh Aliou Touré barikàlla sunu borom dogal mu doon koo xam ne ku bari ay tawféex la ndax tawféex ji njëkk mooy la ko boole ak Serigne Touba Khadim Rasoul te mu jógee ca sunu borom waaye ñaareel ba keroog bi mu jógee Touré ngën war a dem mbakke Kajoor ci jamono cooroon nga xam ne bi mu agsee nuyu sëriñ bi Serigne bi néewu ko noo sant néewu ko noo tudd Serigne bi neen ko Aliou Touré dig ba teew na. bi mu joxee loxo Sëñ Tuubaa ci Mbàkke Kajoor Sëñ Tuubaa dana ko Aliou Touré dig ba teew na dar koy joxoñ romb jaan gane ca wet ga ne ko toog ci Aliou ci kaw lay toog nga xam ne Sëñ Tuubaa keroog baati arab la jëfandikoo ak moom Cheikh Aliou ne ko fii baax na ñu waxtaan ak moom Cheikh Aliou wax ko li ko tax a jóg Sëriñ tubaa nongul ko ko Cheikh jaayanteek moom Sëriñ Tuubaa yebal ko ca tool ya yebal ko ca tool ya ba mu eggee li ñuy wax dëpp nekk lafa def daa ruur gob bi rek sëriñ Touba wax ci mag ñim toogaloon ne ana ko xam Aliou Touré mi fi ñëwoon léegi sëñ Maxtaar Penda Jang ne xam naa ko sëñ Touba ne ko demal wooyu ko mu dugg ay tànk yu dëgër ba demee woolu Cheikh Aliou Touré la ñu jiitlante dëgg tànk yu dëgër bi mu ñëwee Serigne Touba ne ko tawfeex ju mat kak dafa jóge ci sa borom jëm si ci yow ndax Seydina Jibril léegi la fi jóge nee sa borom nee bis ni ko tey kenn waratu laa liggéey loolu léegi fi doon sàkku am nga ko loolu di tawféex ju rëy moom mooy ki nga xam ne bis bi mu jébbaloo ci sëñ tubaa xadim rasul ci la Seydina Jibril wàcc wax ak sëñ tubaa ci mbiram ci ndigalul sunu borom ba ko sëriñ tubaa waxee loolu daat ne ko nag dama lay ñaanal nga dellu fa nga jóge woon maa ngi lay xamal ne boo delloo boo delloo képp koo xam ne daje nga ak moom wala képp koo xam ne jébbalu na ci yow na nga xam ne mel na ne ci man la jébbalu nga xam ne bi sëñ tubaa waxee loolu Cheikh Aliou Touré barikàlla bi mu jógee fii daa daal di waa wàññeekuwaat dellu fa nga xam ne fa la jóge woon fekk sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul muy Touré ngeen bam demee ay bokkam ñoo ñëkk a jébbalu ci moom ñeneen ñi doog cee topp waaye bam demee daa daal di tàmbali programme bu bukkut ak ba mu fa bàyyi woon ba mu fay jóge ndax dafa tàmbali léegi fa yéene nekk nag ci lépp lum liggéey yët sëriñ bi lépp lum xam wax sëriñ bi. nga xam ne ca loolal nekk di liggéey di indil sëriñ bi di baagante ba sëriñ Tuubaa jóge Mbàkke Kajoor euh, ñëw Mbàkke Bawal jógee Mbàkke Bawal ñëw Daru Salaam jóge Daru Salaam ñëw Touba Cheikh Aliou foofu yëpp mu ànd feek moom di liggéey di jox sëriñ bi ba ni sëriñ bi egg see Touba mu jëflante moom ak jëflante yoo xam ne kon xam naa dañuy taxawlu foofu ba sëriñ Modou Mokhtar delloo la kàddu gi ñëwaat indi leeral jëflante yooyu lan ak lan ak lan la incha allah. jël kàddu. ci turu waa kuréelu sëriñ Bay sëñ bu ko dajut Bàmba dajoo ci bis bi nga xam ne Serigne Gana mi ngi koy def ngir di ci sant Sëñ Tuubaa waaye di ko ci delloo njukkal waaye it mu amee ci pas-pas bu am solo boo xam ne mi ngi ko ci taxawaale muy saa bu ñëwee muy xencu ci mag ñi àndoon ak Sëñ Tuubaa ngir di leen ci fàttaliku di leen ci dundalaat ndax borom xam-xam dañuy tawax ne waa inde sikri saalihina tansilu rahma ñeen ni ñoo xam ne man arraxa waliyan fakkan fakk anama ah yaaw képp ku taarixal ni nit ku baax mel ne ni dundalaan nga ko te jëm yu mel ne sëñ Aliou Touré ci seen pas-pas bu rëy ak seen jëf ju saa bu jamono doxee bañ leen di fàttali ko danañ delloosiwaat suñuy xel ne bu jamono dogalaatoon ba ñu dellusiwaat jamono dana dana gën a naat jamono dana gën a jëm ca kanam waaye ci biir fàttaliku gi ñu leen fàttaliku ci la suñ borom di dundalaatu suñu jëmm di ko naatalaat ba mel ne taw saa bu wàccee ci suuf ni gàncax gi di naate ak ni muy dundaate mu mel ne loolu moom moo tax waa kuréel bii nga xam ne mooy kuréelu sëñ bi sëñ bi ñoom itam am pas-pasub fas yéene jàppale sëñ Gana ci bis bi nañ ko ci fas yéene defe it mooy lépp loo xam ne mooy ta waajtaayu bis bi ñu fas yéene ànd moom lu ci jiitu muy di jàng alxuraan di jàng ay xasida waaye di def ay ndaje di waxtaan ci sëriñ bi ak nu ñuy def ba bis boobu saa bu ñëwee mën a sell mën a ñoŋ waaye mel ni nga xam ne it noonu yi la ko Sëriñ Tuubaa bëggee woon waaye noonu yi la ko mag ñi nga xam ne ñu ñoo àndoon ak Sëriñ Tuubaa te ñu leen ci fàttaliku noonu lañ ko bëggee woon te bi ñu ko njëkkee wax Sëriñ na ne ko dañ koy def kuréelu soppe ma ma daal di wax ne buñ ko defee kuréelu soppekat bu ëllëgee bu ma fa jógee liggéey bi mën naa dakk waaye nag nañ ko def kuréelu sëñ bi siñ bi li fekk mbirum sëñ baa ngi dox kuréel bi di dox loolu nag defe naa ne farlu taxis la boo xam ne Sëriñ Tuubaa moo namm liggéey bi doxee noonu ba tax mu defal ko ci tawféex kon noo ngi ñaan bis bi yàlla nañ ci suñ borom egg gëleeg jàmm nu dugg ji ci bisimilah rahmaani rahim tegg ci alhamdulilah rabil alamin njaboot gi nga xam ne it ñoo bokk ci njabootu Sëñ Tuubaa ñu dara jaal leen ci tudd leen ci muy sëñ Aliou Touré ak ma Babou Guèye ak mboole mag ñi toppan Sëñ Tuubaa nga xam ne li ni ko sëñ Mourou Maxtaar léeg-léeg léegi garaat yi ñu làq ci Sëñ Tuubaa bañ koy am xëy na doonuñu woon yu mag waaye nag jëf guñ jëf jëfi mag a tax saa bu ñu leen tudd rek di leen dàkkantel ay mag. ñu ngi leen di jaajëfal bu baax mbokk yi euh, di leen indil kàddug sëriñ bi ci ndigal lu nu dab ci ki yore kàddoom mooy sëriñ Mohamed Touré moom Alaaji Seex ture mu mel ni sëriñ bi. mu mel ni sëriñ bi dafa rafetlu lool jataay bi rafetlu gi ci am nag moo tax bis bi doon bis bu matale bu mat boo xam ni sëriñ Gana Messere moo ko tudde Cheikh Aliou ture mu mel ni sëriñ Gana moom xam na kan mooy sëriñ Touba ndax kuy kuy ku bëgg a daj sëriñ Touba mag ñi ngay jeex sëriñ tubaa nekk na fi lu yàgg te kenn daju ko waaye bi mag ñi eggee ci ñoom rek la matale ñëpp daj ko kon nag sëñ Gana su bëggee daj sëriñ bi ca mag ñooña lay jaar la ko déey nag jaarale ko ci moom ba mu egsi ci Cheikh Aliou la loole mooy mbégte moo xam ni ñoo ngi ko ciy ñaanal lépp lum ci bëgg a sëriñ bi rek yàlla na ko daj ñu koy wax ni sëriñ Ibrahima moom am na ci rafet njortu gu wér goo xam ni xam na ni sëriñ Gana lépp lum doon door rek jàpp na ni bisub tey bii lay doog a commencé moom dana am taw tawféex te dana daje ndimbalu sëriñ Touba ci saayir ak ci baatin nag loolee nag su amee lenn waralu ko lu dul li mu def sëriñ bi ndax kat lii mu def day wane ni rek lenn ñoru ko lu dul Serigne Touba kon nag ñu ngi woo njaboot gi yëpp Serigne Ibrahima nee na mi ngi woo njaboot gi yëpp ndax njaboot googee tamit. yàlla dafa dogal ñu laxasaay lu yàgg topp ci ginnaawam te déggulutuñ jenn ndigal ndax njaboot gi yàlla dafa dogal bi ñu yaakaaree sëriñ beet dañoo tënku ñoom seen bopp sos benn fédération ngir gën a yombal seen digganteek sëriñ bi ci biir loolu nag tey jii sëriñ xaadim mi nga xam ne yàlla dogal na moo ko jiite te nekkul ci réew mi alhaaji sëriñ ñiis mii di xalifab sëriñ son yi bu ture moom moo ko fi nekkal mënoon na ni sax kàddu gi ci loxoom mii la ci loxoom lañ ko waroon a teg ndax itam moom moo fi toogal sëriñ xaadim mi nga xam ni jiite na fédération bi moom muy vice président fédération bi ñuy xamal ni sëñ Gana ne ko bis bi sëriñ bi joxe na ci ndigal loo xam ni jaarale ko ci njaboot gi yëpp ay jëwriñam a ngi nii toog kenn desul ay doomam a ngi nii toog ñuy ay ndaw yu mat ndaw nag ñu lay wax ni ñii fi toog jëmmam lañ fi toogee barkeem lañ fi toogee darajaam lañ fi tooge waaye ñoo ngi lay xamal ni sax fay moom amuñu ko yow Serigne Gana ndax mbir mu nekk ka ko njëkk a yëg rek moo xam na mu toll te yow mi ko yëg ba ni ki ngay daj du kenn ku dul Cheikh Aliou Cheikh Aliou moomee mooy Serigne Touba te bu bis baa bu neexee Serigne Touba dina taxaw ci sa ginnaaw taxaw ci sa kanam te loo geestu boo ko gisee njabootu Cheikh Aliou lay doon ñoo ngi lay ñaanal suñu borom dolli la tawféex ak taysir wa salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.